bëgg ci réew rek moo moo ko waral mi ngi liggéey ci réew mi wax dëgg yàlla mi ngi def ci social mi ngi def ci santé mi ngi def ci sport mais loolu nag wax dëgg yàlla Macky Sall mënul kër gu ne problème bu fu nekk mu lijjanti ko mënu ko qu'on la vérité mënul loolu Sénégal c'est un pays sous-développé lu ñu am ci moyen kës néew Macky Sall mi ngi koy def et donc nañ ko ñaanal yàlla moo gën ñu toog di diñet di wax yoo xam ne amul benn sens loolu laay oote sama mborom jeunesse bi boof li nii nag

ku sonn dootal xaste léegi nag feebar yàllaa koy tege koy tege mais président lu mi ngi def Sénégal ñëpp gis nañ ko ñu ngi koy di ko wax ko une très bonne continuation Nous gën continuer bañ a tontu kenn bañ xarab kenn bu mu tontu kenn dina liggéey rek yàlla du fay mukk jëf euh, yàlla du fay mukk wax jëf aussi di di di di gërëm aussi sama mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr pôle bi tax ne tey ñëpp te bu ñëpp ñëwee économie Sénégal dina yokk bu ñëpp tey jii pôle bi tey bu ñëwee sport bi stade bi taxaw tey si pôle bi la nekk bu stade bi taxawee rafet doon stade boo xam ne franchement ñëpp ko gis si àdduna mo dina tax suñu football wax dëgg yàlla dina am dina am doole dina tax coupe d'Afrique bi ñu ko organiser organiser ko te ko organiser mën ko jël donc développement la ci wala sport développement la ci wala économie Sénégal développement la ci lépp donc jëm ñaaju daal moom la loolu la loolu la président jël loolu la yàlla jël nakal ko président et donc c'est une c'est une c'est une ville nouvelle nañ bëgguñ nag mu don comme ay yenen ville yi wala comme ay yenen ki non non non dépasse nañ lolu c'est une ville nouvelle dañu bëgg mel mu rafet loolu yanj mel ni comme la défense de Paris bari sécurité bari lepp kon nak investisseur yi ñëpp ñëw ñu ngi oo ñëpp nañ ñëw bayuñ kenn na développeur yi ñëw parce que pôle bi seen pôle la bëgg nañ mu rafet te foncier baa nonu té te ñëpp nañ ñëw jaar nak ci monsieur le ministre Diène Fabassar parce que pôle urbain bu Diamniadio encore je répète encore c'est le ministre Diène Fabassar